salaamaaleykum àddina salaamaaleykum euh, Sénégal ñu ngi sant yàlla di am contentement di teewaat fii ci seen émission salon des VIP képp comme ni muy amee chaque samedi samdi bu jot euh, ñi ñaanal euh, kilifa diine yi. di ñaanal euh, kilifa aada yi aussi di ñaanal ña nga xamante ne caabi da leen féete ginnaaw yàlla génne leen foofu di ñaanal ña nga xamante ne tey si seen lalu hôpital euh, yàlla génne leen foofu di ñaan Sénégal yàlla tur fi jàmm yàlla def fi xéewal yàlla def fi sutura tey ji nag plateau bi duma ci weet comme di muy amee saa su ne tey ji maa ngi ànd ak euh, fii Niki ak Baye Ndiaye Niki nuyu naa la salon des VIP ñu ànd seeg euh, sang Mbacke Mbaye ñu ànd seeg Baye Ndiaye ànd seeg Zak waaw comme ni koy waaw comme ni mu ko waxee rek tey salon bi tey yaakaar naa tey dara du yomb baay Ndiaye nuyu naa la. waaw Zak maa ngi lay fay bu baax yaakaar naa ni du nuyoo tamit bu baax ñi nga xamante ni ñoom laa seqal plateau bi rawatina sa invité. waaw xam nga olof dafay wax ni ku am gan nag da ngay yokk rek. Mm-hmm. waaw te yaakaar naa ni tey affaire dafa war a xëm. ndax fi ñu toll la moo tax balaa maa gën a xuus nag euh, damay nuyu ñi nga xamante ni samedi bu jot dañuy jël seen temps toog jàkkaarloog site bi nga xamante ni mooy social shopping ngir lan seen émission bi nga xam ne mooy salon des VIP ndax xam na ni ñun duñu invité cuune mhm. ay daanaan rek la ñuy invité ku nu woo fi ndaanaan nga waaw yaakaar naa ne nag Baye Ndiaye loolu lay nuyoo waaw comme tey euh, comme ni mooy amee saa su ne ndax yaakaar naa salon bi fii ku fi toog rek ab VIP nga ki nga xamante ne maa ngi la koy waaj a présenté nii nii nii du ko wax tant que jëluñu ko gros ki nga xamante ne moom mooy euh, Sangam Mbacke mbay mi nga xamante ne mooy euh, coordonnateur coalition Madické 2019 fii ci nga xamante ne mooy Dakaru Ndiaye ba pare nekkoon représentant PDS fii ci Cambérène Sangam Mbacke maa ngi lay nuyu. maa lay fay maa ngi lay fay. xanaa rek euh, di leen remercier ci invitation bi di euh, rafetlu sama teewaay ci salon des VIP et donc euh, di préciser que ba léegi man maa nekk responsable parti démocratique sénégalais fii ci effectivement ni nga aussi ma nekk coordonnateur du si département bu Dakar. waaw sëñ Sanga Mbacké gis na ne ni euh, PDS nga nekkoon euh, yow ak ki nga xamante ne mooy euh, président Madické mais pour quoi yéen ngeen tey am benn fit beru ngeen bëgg a nekk président. waaw préciser naa ko sànq dama ni ba léegi PDS la ñu nekk ndax nee naa sànq ci leeral bi ba léegi man maay secrétaire général PDS fii ci Cambérène alors donc ñun PDS Karim mooy sunu candidat. mais xam ngeen ni Karim Macky Sall xale yi ndaw yi sax xamoon nañ ni Macky du ko bàyyi mu jàll dana def kem kéem tolluwaay kàttanam pour baare ko. Mm-hmm. alors li xel nangu woon nag mooy ñu am roue de ndax oto bi doo a génn ci usine sax day am roue de secours pour su ba dëggee ba dëggee pëna ñu jël roue de secours bi daal di koy remplacer. Mm-hmm. alors ci parti bi aussi am ñu ne woon du ñu am roue de secours. Mm-hmm. bu dul Karim du kenn. Eh, ñeneen ñi jàpp ni loolu yabaate la. ndaxte. Karim ni mu nekk ci parti bi su doon moom rek PDS du egsi fii man mii di wax ak yéen avant Karim di ñëw euh, tëdd naa kaso ci PDS def naa euh, sept mois de prison ci 100 mètres gi ci PDS boobu ak léegi euh, ren yi am na ñaar fukki at ak juróom-ñeent ah le le 4 avril 1990 ak tey ji ça fait donc 29 ans ba nga xamante ni tëddal naa PDS kaso juróom-ñaari weer boobu Karim Wade gisuñu ko donc du ñu mën a nangu ñu ne bu fekkee Karim demul rek ñun parti bi du ñu am candidat te su dee jàng la am na ñu jàng ni Karim su dee am engagement la am na ñu am engagement ni Karim su dee am xam-xam la am na ñu am xam-xam ni Karim ba loolu moo tax euh, maître Madické Niang bi mu gisee gàllankoor bi nga xam ne Macky lal na ko ci candidature Karim euh, ñu ñu doon xeex pour teggi gàllankoor boobu ndax ñëpp xam nañ ni boobu léegi ñoo ngi ci xeex ak gouvernement bi pour Karim nekk candidat mais am na foo xam ne bañ fa tollee. manam dañu yak candidature définitivement ndax bañ nango carte électeur am eh, ba pare bind ci loi bi ni ku amul manam droit de vote do meuna nek candidat bobu jar won ñuy dem bañ koy depp ñu do nga xamanteni du jall ah ndax boy dem marché ñu nang sa ndugg xam nga ni bo démé do meuna jënd lenn donc da nga war u deel war ginaaw dem uti ndugg ci lañ né nak ci le maître Madické ñay bindé lettre xam le ni na parti bi tan keneen nañ ko tok waxtani am ñeneen ñu ne loolu duñ ko waxtaanee dañuy dem xeex et donc ñun li ñu jàppoon mooy Sénégal bu ñu xeexee itam lépp lu ñu fi yàq rek Abdoulaye Wade moo ko fi liggéey donc li yéen woon maanaam mooy ñu teg Karim jël keneen wala sax ñu bàyyi Karim dem ñu jëlaat keneen à côté mu comme roue de secours comme li ma dikkee ñaa def te yàgg na ko wax mu ne bu Karim jàllee moom dana retiré wu bu Karim jàllul nag mu nekk candidat PDS donc ci loolu lañ taxaw ba. Karim effectivement jàllul parce que Macky moom rusul ni dafa ragal Karim ndax noonu la doxalee donc tey ji Maître Madické Niang taxaw vraiment pour PDS nekk candidat teewal n'est-ce pas PDS ci biir élection yi loolu daal mais euh, ñun ay PDS lañu n'est-ce pas Abdoulaye mooy sunu mooy sunu leader e parti démocratique la nag la ñu wax démocratie du ñëpp ñooy bokk gis-gis ñi dañuy gisee ne ñii gisee na le mais li charme démocratie mooy bu gis-gis yu wuutee ñu war a toog waxtaanee ko xëy na ñàkk a toog waxtaanee boobu mu indi tey ji euh, li am mais euh, jàpp nañ ni xel yi danañ jël si waat à la raison ñu xamante ni kii kat li mu def nii mooy chance su PDS. Euh, instant bi dama dama dégg sa biir wax léegi lan mooy sa différen différence parce que PDS parti la mais yéen li ngeen yor nii nii nii nii ñaar la ndax instant bi am na waa PDS ñoo xamante ne daa xooruñu waaw xam nga euh, PDS ni mu doxalee euh, gox boo dem PDS dafa def ñaari temps ñaari camp ñii féete fii ñii féete fa fële ba fii ci Cambérène alors euh, parcelle noonu la demee Grand Yoff noonu la demee fu ci nekk alors loolu li muy jur bu fekkente ni décision parti bi ci kaw yow da nga ci d'accordul doo ñemee fës ndax boo fësee dañuy jël sa wujju teg ko fa nga daal di ñàkk sa coono ya nga fa defoon yëpp looloo tax bi nga xamante ni wax nañu affaire parrainage ma dikki jóg militant PDS ak responsable yi dañ ko parrainé ne bu rafet xam nga man mii dama bokk ci ñu ko ne xam nga ku mel ni Massaly dafa bokk ci ñu ko parrainé ak ñeneen ñoo xam ne dama leen fa yóbbu ñu parrainé ko donc bi ñu ko parrainé moo tax mu jàll jàll bu rafet yàlla tamit def ci sutura parce que Sénégal yëpp mënoon nañu ko pare ne te xam nga parrainage bu fekkee yow da nga ma parrainé parrainé kii man su ma ko njëkkee dugal yow bi nga ma parrainé lañu la ñuy wàññi mais moom bi nga ko parrainé dañ koy annulé alors bi yàlla defee ñiy dugal maître Madické Niang nekkoon cinquième cinquième boobu dafa tax moom ña bokk ña nga xamante ne dañ ko parrainé parrainé ña topp ci ginnaawam ña topp ci ginnaawam seen parrainage dañ koy annulé loolu moo tax mais xëy na bu nekkoon sixième wala septième xëy na du am chance jàll mais bu ñu xëy xëccoo pour njëkk a dugal mooy ba minute Touré doon jàppante ak gàkko bu ñu doon fa gàkko kor fañ yaa ngi koy rappelé bu baax boobu pour njëkkante pour nekk pile wala deux wala trois wala quatre wala cinq yàlla def ma Madické nekkoon cinquième nag xëy na bu doon sixième kon ay parrainage am du du baax wax ju baax maintenant PDS donc dañ ko parrainé en masse maintenant pourquoi responsable yooyu ñi ma wuñoo wax ci kaw ni ñu ñoo ko parrainé c'est parce que xëy na bu ñu ko wanee ci kaw parti bi dafay jël seen wujj ba nga xamante ne moo nekk seen gox dooleel ko ñàkkal leen est-ce que comprendre ju baax mhm. mais doxalin bi nga xamante ne moom la maître Madické doxale mooy doxalinu raison euh, su ma déggee ci sa biir wax da ngeen ni comme yéen da ngeen a da ngeen a nekk candidat bëgg yore réew mi mais yéen est-ce que bu leen joxee réew mi li fi Macky Sall def est-ce que yéen pare ngeen pour def ko. waaw euh, sànq ci biir waxam dafa laaj ni euh, PDS dafa am ñun ñun ñu am xam nga candidat tey jii maître Madické dafa assurer ay garantie ni du lu mu mais daf ko daf ko nek xam nga euh, ngay wax nit ñi ni dana danaa baax baaxal ba ba ñuy gis ci yow baax ci lay gën a dal dal xel tey da ngay gis candidat yu bëri dañ naan man su ma nekkee président dootuma nekk chef de parti tey yàlla daf ñoo may à travers Maître Madické Niang c'est le seul candidat boo xam ne n'est pas chef de kon donc la Sénégalais yi doon ragal ci fal koo xamante ni day nekk président ba pare di jiite parti ah finalement du tal réew mi ndax xëccoo ak pàccoo bi ci biir parti am loolu duñ fekk ci Madické Niang loolu donc loolu donc benn garantie la boo xamante ni moom mhm. assuré na ko kon moom sooy xool day mel ni candidat indépendant la bu bokk biir PDS maanaam PDS officiellement du ñoo porter sa candidature mais xam ngeen ni ci euh, loi parrainage may na candidat indépendant. Mhm. da nga wax ji baax. Euh, donc donc ma daaneel foofu moom candidat indépendant la boo xam ni ay citoyens sénégalais ak ay militants PDS am na fukki candidat ak ñeent yoo xamante ni dañ leen a recalé wala ñoo xam seen parrainage euh, matul woon ñu ñëw jàppale ko. kon te yooyu yëpp c'est parce que dañoo gis ci moom ay jikko yoo xamante ni maanaam am na garantie ni moom li Macky dige woon n'est-ce defu ko moom loolu kenn du ko si gis. mais actuellement ni danoo gis Sénégal fii fu mu toll nii Mbaye Ndiaye euh, ki ñuy naan euh, Karim Wade neewu fi mm-hmm. te ku xam Karim Wade xam ne am na doole tey jii xalifa Sall te noonu ko mm-hmm. mais tey tey jii nii est-ce que élection yi. noo leen ko noo ko jàngee est-ce que yéen pare ngeen pour daaneel Macky Sall est-ce que am ngeen pouvoir boobu. waaw Macky Sall Sénégal yi dañu génn ci moom d'abord parce que soo xoolee ba muy doog a falu ak élection yi mujj résultat yi muy am si bien que moom à chaque élection day jéem a luubal mais xam nga loolu luubal luubal élection bu la kenn bu la kenn voteelul doo mën a duubal ba ba donc moom soo xoolee élection député yi passé rek si bien que amul luubal bu mu deful nag ku nekk dem sa bureau di vote di vote di vote ñu ne la yow ko newatoo fii ngay wër ngoon tandis ñoom seen militants yi yóbbu nañ leen ñu dem voté ji malgré loolu luubal boobu Macky Sall def ci élection député yi amul woon cinquante pour cent est wax ju baax. Mhm. te xam ngeen ni actuellement nii la Sénégalais yi gën a raxas ci moom. par conséquence Macky Sall mënut a jàll instant yi muy def pour napp Sénégalais la xam nga Balla Gaye ak Modou bu ñu bëri. ku nekk napp sa morom yow soo duggee ci làmb ji dinaa la lekk non soo tegee sa tànk nappaate la c'est-à-dire day day joué ci bopp sénégalais yi nu maanaam day joué ci bopp sénégalais yi uh-huh. pour sénégalais yi ni non kii sàcc na ba toog ba pare xam nga bu yobu ñu dem frenkulaayu xam ni mooy gañewaat du gañe tous loolu ku ko def sa bopp dem toog frenkulaayu su boobaa nag su boobaa ci lay jaar sa xel mais yéen ma wax leen bu ñëpp voté contre moom mun la fexe ba gañe waaw mm-hmm. mais d'accord ba nga toogee day nekk naan su ma faloo dinaa def lii dinaa def lee mais Macky Sall toog na fi sept ans mais def na fi loo xam ne ñi fi toog plus de cent ans defuñu ko fi. waaw avant ma ñëw ci wax jooju damay ñëw ci laaj bi mu laaj sànq diggante xalifa Sall nekk ci prison bi ak Karim Wade nekk ci prison bi loolu ci bilan bu bon Macky Sall la bokk ndax Macky moom dictateur la xam nga dictateur buy reetaan di la sourire moom loolu la li mu def nag dafa yomb parce que li jafe mooy nga yor armée yor gendarmerie yor police xam nga nga bañ a jàkkaarloog nit. bañ a moom nga dem uti doole xam nga pour soo jàkkaarloo moom ci làmb ji nga daan ko. tu comprends très bien mais utiliser armée gendarmerie ak police pour xañ nit jàll loolu mooy li gën a yomb. donc moom il a préféré la voie facile pour écarter les mais li jaadoon mooy mu propose Sénégalais yi lu leen convaincre Sénégalais bu ñu ko wóoloo ñu fal ko. actuellement nii par rapport ak bilan ba ngay wax moom su wóolu woon bilan mais kon du tuumaal euh, Karim Wade tuuma yoo xam ne dara taxawu ci pour yàq kayitam su doon woo na bilan mais kon du tuumaa Khalifa Sall uniquement pour bañ Khalifa Sall nekk ci euh, euh, pour bañ Khalifa Sall du nekk kandidaa xam nga te bilan boobu ngay wax ma xamal la ci lenn xam nga xam nga euh, xam nga produit chinois danga nga koy gis mu rafet mais amul avenir tey jii Macky li ngeen di wax bilan lu ci bëree bëree bëree bëree bëri ay financement la yoo xam ne daf fekkoon wàdd lijjanti ko ba teg ba ñu war a tàmbali soo leen fàttali ko waat naan may leen ma ma ma terminer sama chantier yi. xam nga loolu ngeen déggoon waat mhm. doon ko wax c' est parce que waat amoon ay financement ci projet yëpp ba teg même pont wu euh, Gambie bi Madické Niang mi moo ko demoon outil financement bi ak accord de accord de signature bi ba ñu d' accord ak Yaya Jammeh ba ñu am financement bi mhm. Macky bi mu ñëwee xam nga mu def dafa baaral xam nga baaral ceeb boo xam te ni ñor na ñun ñoo dëkk fii ñun ñun ñoo dëkk fii xoolal ñoo dëkk kàmbe ren de mhm. mais gis ngeen pont bi uh-huh. xam ngeen pont bi depuis ba waat yi euh, wàcc ñoo ngi commencé euh, tàmbali affaire bi mooy diggante bi xam nga mu koy baral di baral uniquement pour buñ demee buñu ñu ne suba élection yi mu ñu inauguré ko su ko défé sénégalais japp ni mom moko def est ce comprendre ñu bax pau gam bi tam non la def maintenant benen danger bi nek ci de euh, réalisation Macky Sall yi day fekk big bo xamanteni fukki deureum la doon jar mu jënd ko 2000 francs té li ci gëna yémi ci français la koy jëndé té ñun ñoo fay té big bi big bi France lañ koy défar da ngeen jël benn projet muy terre bi train boobu ñuy wax train express régional terre bi scandale weesu ko am na beneen scandale sax ñaari scandale wala ñetti scandale yu gën a rëy boobu mais dama leen ñamal ci terre bi rek train boo xamante ne déjà fa train bi dem autoroute à péage bi romb na ko amatul sens train boo xamante ni li muy jar train boo xamante ni euh, bu nigeria def na trois fois trois fois ah wala quatre fois même parce que bi ay 45 km la bu nigeria def na 300 ak sangam nangam km di nga wax ci bax te bi moko gëna cher xel mën na nangu loolu. de de de de de terre bi ben entreprise française bu tudd alstrom mo doon bëgg daanu. président France woko diko joxol sama entreprise bi ben marché xam nga mu yëkëti marché 1000 milliards 1200 milliards jox ko jox ko jox ko jox ko entreprise bobu 1200 milliards xam nga numu tollu Abdou Diouf. maanaam Abdou Diouf bi ñuy wàcc di jox wàdd pouvoir bi budget Sénégal li ñuy fay gendarmerie police ak armée yëpp ak enseignement ak li ñuy defaree ay tali Sénégal li ko dundee maanaam 516 milliards la woon. Macky Sall jël benn marché rek jox ko benn entreprise française boo xam ni 1200 milliards la donc ku gis terrain bi rafet nga naan ah, am nañ terrain boo xam ne yaatu na xam nga ba fekk na yow rey nañ la te léegi li gën a yéemu mooy nga defar terrain boobu amul impact ci économie Sénégal parce que tey ñun lan lañ soxla. Sénégal bo bëggee dem euh, Mali nga jël train dem ba Bamako xam nga manam nga mën jël train dem ba Saint-Louis nga mëna jël train dem ba Casamance te pour lolu am 400 milliards 400 milliards mëna na train bi euh Saint-Louis indi ko ba Dakar jëlé bu Dakar bi yobbu ko ba Bamako mu nek ay train yu tak 400 milliards Macky Sall jël 1200 milliards ci ben train bo xamanteni gënul Dakar c'est-à-dire tooxi doonu mel nonu, nit ku ci manam nit ku rafet lolu sax. dama naan yow est-ce que ànd nga ak sa xel. maanaam yow kon jamono jii su ma déggee bu baax li ngay wax mooy Macky dafa pasar pasaree alalu réew mi loolu dinaa ci ñëwaat waaye li ma gën a amal importance mooy sànq ci seen i biir wax. Mhm. question la boo xamante ni sa posé na la ko. Mhm. mais da ngeen ci avancé vite fait muy diggante bi nga xamante ni da ngeen euh, PDS ak euh, Madické bu mu la ñaar la. Mhm. ndax Madické lii mu taxaw tey nii jël ko biir PDS est-ce que amuloon keneen ko ko bëgg. waaw. Euh, Madické ba nga xamante ni euh, affaire Karim dem na ba Cour suprême mm-hmm. Macky Sall xañ Karim carte électeur injustement et illégalement tegu ko fenn Karim def porte plainte maanaam Cour suprême. Mm-hmm. Cour suprême def ay affaire yu caaxaan xam nga lu tax ñoom ñu rejeté këyitu Karim boobu. Mm-hmm. ñu ne parce que Karim sa adresse da nga def ci euh, ci bataaxal bi ñu demandé bi nga defee plainte bi. sa adresse point e nga ko def te yaa ngi dëkk Qatar est-ce wax ju baax. te waa kër yi ba nga xamante ni Karim ma nga woon Koweït ñu koy convoqué point la ñu indi woon convocation bi. xam ne affaire caaxaan weesu lool ñoom fa la ñu sukkandiku. ni Karim donc sa li nga demande pour ñu defaat la ci liste électorale yi ñun duñu ko mën a jugé ñoom bu ñu de bu ñu des dee loolu loolu fa la yem. donc conséquence mooy Karim du mën a bokk ci fi ci liste électorale beneen bi conseil constitutionnel daal jël benn arrêt dogal ni ku amul droit de vote doo mën a nekk candidat ñaareel boo ko tegalee lan lay jur. Karim du mën nek nekk candidat ba loolu amee nag ci la Madické Niang mi xam avocat Karim nekk tam responsable ci PDS bind président Wade lettre xamal ko ni ñaari décision yi dana am jeexital ci euh, ci euh, candidature Karim su ma parti bi toog ñu waxtaanee ko ñu tànn keneen. mais su parti bi mhm. su parti bi bañee di nga wax ci baax. Mhm. gis naa kàmb kàmb gaa ngi nii sunu kanam te sunu ruu bi bënn nañ ko xam nga oto bi nañu toog ñu waxtaan ñu pour dugg ci gi yow nga ni duma xol ban ban roue moo bënn du ma gauche duma jadd droite wa man mi bok ci bir auto bi est ce que au moins droit ñëw téye volant bi dama tourner auto bi ba auto bi du dugg ci bir kamb gi. Ah, mais ci laale né nak volant bobu non ah. ni ko ma diké téye ni est ce que amul kenen kum ko mhm. bokkoon fofu waaw su doon nak dañ ko tok waxtaanee. Mhm. comme mom lam leen wootee won ñu tok waxtaanee ko kon xeyna parti bi sax tan Omar sar wala tan Babacar Gueye wala pat wala tan keneen di wax ñu baax. Mhm. mais dañu duñ ko waxtaanee dañuy dem xeex te tey jii bu ñu demoon xeex wala Madické toppoon waa parti bi ci li ñu wax ñu dem ba ñu rejeté Karim est-ce que su boobaa moom moom mun naa wëlbatiku naan damay dem di uti ay parrainage. mais Baye Ndiaye. ba wéy na muus. gisoo ni Macky Sall dafa yaakaar ni waa PDS dañoo foqale. parce que euh, ñoom mën na ni Karim comme bokkutu ci. mais au moins yéen da ngeen a waroon toog mais tout le temps da ngeen bëgg PDS amaat beneen nekkaat yorewaat réew mi waaw euh, xam nga aussi ñun dañu am projet de société mm-hmm. te ñun wax dëgg yàlla duñu jaar Sénégal di am gàcce mm-hmm. te fu ñu toog nag ñun Sénégal war nañ faa mun a wax luñ fa def ba ci Cambérène gi ñu toog nii premier chantier Ablaye Wade Cambérène gii la mm-hmm. ba mu faloo bi muy falu avant en 2000 bi muy dugg si Cambérène soo leen fàttalikoo diggante deux voies yi Kër si mutala su mu saana taw ndox mi day nangu benn tali bi tali bi daa wàccoon premier chantier Ablaye Wade bii la dégg nga ci baax ñëwaat Cambérène ñu ne ko affaire euh, tuyau bi mu ne tuyau bi jëlee ko fi do loo xamante ni di mbiru ñaari fan la mais li may def dama wut tuyau boo xamante ni day yóbbu ndox mi ba un kilomètre cinq cent ci biir géej faf géej gi daal di rejeté tuyau boobu ñu defaat ko géej gi rejeté waat ko donc chantier Abdoulaye Wade bi njëkk fii Cambérène la c'est-à-dire ñun PDS amul sunu bilan bilan Abdoulaye Wade dañ koy ndamoo parce que budget Sénégal de 516 euh, milliards la ko fekk bi mu fi jóge yóbbu na ko ba 2300 milliards salaire yi salaire yi parce que réew soo bëggee euh, maanaam alal ji tas baawaan fu nekk salaire ngay njëkk a yokk mhm. daal di créé waat ay emploi boo yokkee salaire ki nga yokkal salaire jabaram dana ko yëg ay doomi ay doomam dana ko yëg fu muy jënd jënd dana ko yëg bi dana ko yëg même même tailleuram ak euh, maçon wam mhm. ak euh, nu mu ak ak ak menuisier dana ko yëg ba pare nga créé nga mën a liggéey parce que ñun ay libéraux lañu libéral day maanaam day day investir ci nit pour nit ki am xam-xam nit ki am nekk ci environnement boo xamante ni su bëggee liggéey liggéey dana ko yomb mais yow nag bu ñu bu ñu créé loolu lépp sa ci li te amoo motivation pour liggéey su boobaa nag yow état wàcc na ak yow. waaw waaw sang donc donc pour dire que euh, ñun pourquoi ñu ne du ñu toog dañu am projet de société pour jëlee Sénégal fii ko mag Sall jële teg yóbbu ko. fa ablay wad bayon ngir jëm kanam. Oh. parce que wedi wul ni président wad lepp lu doon njariñ doon génne alal daf ko nangoon ci tubaab yi jox ko doomu sénégalais yi. Mhm. Macky Sall tey lépp yëpp fu dërëm di génnee mhm. nangu nako ci doomu sénégalais jox ko tubaab yi est-ce que tu comprends très bien mhm. tay jii tax réew mi bu ñu naan réew mi dafa metti c'est parce que wad même budget ba ko daan voté ñuy wax 9 euh, milliards par an mom daaw ci laal dara bañ nako ko ba sax amul kër gu mu dëkk mais moo ko fàtt suñu fàttali ko bu baax lu mu amoon da ka daan joxe. parce que moom taalibe la te dafa gëm ni moom yàlla fe fàggul na ko maanaam lépp ba keroog mu muy dugg biir suuf lépp lu ñëw rek daf ko war a bokk askan wi Madické noonu lay gisee donc waat milliards yooyu da nga daan jox askan wi ba gars yi di kaas yaa ngi rappelé bu baax Macky Sall neuf milliards yooyu yóbbu na milliards wala leen ma ko mu ci may xam nga moo tax soo xoolee mu mel ni kuy toj rek day day leen di kii rek di bëgg exploser ndax xam nga gaz baa ngi gaz baa ngi fi sunu gaz baa ngi fi ak pétrole bi xam nga instant bi instant bi moom almet lay daw almet almet lay daw ndax xam nga gaz bi su ko naanee. xam nga naan pétrole bi soo ko seetee almet teg ko danaan bum. waa waa Sanga naa am man naa am euh, benn Sanga man naa am benn remarque boo xamante ne sénégalais yi dañ ko def. oui yéen PDS lu ci bari Sénégal koo wax danaan waa PDS ñoo yàq Sénégal ñoo ko yàq mais léegi soo xoolee tey président bi fi nekk tey nekkoon na premier ministre ci PDS après maître Madické Niang mi nekkoon na ci biir PDS. kon yéen est-ce que yéen nekkoo leen benn pion boo xamante ne da ngeen ñëw bootu ci ginnaaw président Macky Sall pour deuxième tour parce que dégg naa sax ay rumeur ñu naan ñaari opposant rek am ci élection yi. waaw c'est vrai que wax euh, ñi koy wax daam fuñ ko teg parce que xam nga doomu aadama euh, mënul comprendre benn affaire bu am en deux mois même pas deux mois ma dikkee ña am ay parrainage ñu bëri bëri mun ñu comprendre loolu. di nga wax baax moo tax ñenn ñi xam nga nit bu comprendre dara au lieu mu maandu ñu bëree bëri daa am ñu fay jéem a teg moo tax ñenn ñi est-ce que du kii Macky moo ko jox ay parrainage xam ngeen dégg ngeen loolu waaw loolu la la non non waaw mais déglu ma waaw mais waaw mais xam nga yow xam yow tey jii xam nga am na loo xam te ni yéem na ma ci yow waaye yéemu la yow dégg ma ci baax mhm. am na loo xam te ni yow xëy na yow yéem na yéem na la ci man mais man yéemu ma parce que man man maa xam ni ma ko doxale ñun ba ñu demee parrainage ñu ne war nañoo def parrainage dañoo toog waxtaan ñu ne euh, nañu waxtaan ak responsable PDS ak militants yi ñoo ñu pare neen benn. Mhm. deuxièmement ñun jënd nañu ay saret jënd nañu ay moto. Mhm. dem ci zone yoo xamante ni xam nga foofu responsable politique du ñu fa faral dem ndax dafa sori. Mhm. pour ñoo ñu pare neen ñu. alors donc ko xamul ñun fan jaar ba teg suñu bopp janax ñun dañu koy laaj ñu wax leen ko. sans compter sans compter yàlla daf cee def barke. te ma wax leen benn affaire ah ma dëkkee ko bàyyi xel. sànq avant émission bi wax tàmbali mm-hmm. maa ngi leen di tooñ ngeen yaakaar ne ay tooñ kese la Madické yàlla dafa def barke ci moom mm-hmm. macha allah parce que ba ñëpp di xëccoo nee naa sànq ba ñoom gàkku di xëccoo ak ñoom Mimi Touré mm-hmm. ñuy kor fañante Mimi Touré mosoo gi dal fële gàkk gars yi gars yi toj arcade bi yaa ngi ko bu baax xam nga xëccoo yi pour lan la woon pour kuy njëkk nekk payé kuy nekk payé kuy nekk dës parce que ma ñëw rek noonu dégg nañ ay wa mm-hmm. ko jiitu ba pare Mimi Touré mujjee ñëw ba noppi ñu bëgg ko teg ci kanamam. loolu non non non non non non non non defal nag li am foofu li am foofu li am foofu. Ah. gàkku dafa ñëw non gàkku koo wax dafa dafa ñëw fekk Mimi Touré toog. Mm-hmm. Mimi jël benn feuille bind maay numéro un jox noonu la demee. tu comprends très parce que du Mimi Touré. Ah, ah. moom mooy organiser foofu waa gendarmerie ñoo war na organiser. ni diw mooy pay am bindal diw mooy deux tu comprends très loolu lañu jàppante ñoom ñaar maintenant. xëccoo ba yëpp moo doon kuy jiitu parce que avantage bi mooy yow boo jiitoo ña la parrainé te parrainé ña ñëw sa ginnaaw. Mhm. ña ñëw sa ginnaaw seen parrainage dañ koy niilal. Mhm. Madické ba mu déposé parrainage am moom am nañu euh, dañ kaa niilal six mille deux cent parrain. Mhm. ba ñu ko niilalee six mille deux cent parrain instant boobu moom mënutul woon jàll jàllatul woon il fallait que mu corriger six mille deux cent parrain yi. bi mu corriger six mille deux cent parrain yi su ko defee daal di koy dugal. ci la daal di matal. xam nga li ba ñu rejeté six mille manqué wonna ko 2300 pour mu matal. légui bimu corriger lolou loolu ko ci la daal di matal Idriss Seck sax xam ngeen ni mom amna lu manqué loon. mu corriger ko daal di matal. donc ñi ñëk a dañuy am chance mëna baxlé tay ji bu la bu fekkente ne yow boko kenn manam bu la àdduna yépp paré ne woon. nga mujjé dugal amna paré yo yoo xamante ne da nga ak ñeneen. dañuy rejeter ñooñu alors donc ma diké dama doon wax mu déposé nekk cinquième. xam na cinquième la jàpp neel benn cinq waaw ah, benn waaw ah, neel benn rek <laughs> waaw waa waa Jean defal nag na moom na ma daaneel bul yàq bul yàq ceeb bi ñor na bul yàq bul yàq non bul yàq ceeb bi Sénégal lañ fii bool la bul yàq ceeb bi defal ndànk rek bul bul yàq ceeb bi xam nga mooy cinquième euh. mooy cinquième n'est-ce pas mm-hmm. allahu noo koy bindee juróomi baaraam yi déglu ma rek noonu déglu ma bul yàq bul yàq bul yàq ma dikkee kan lañ koy dàqantale sëñ Saliou. bañ nañ ko ba dañ naan barke Serigne xam nga muy te sëñ Saliou mooy cinquième xalif sëñ Touba. Mhm. ma dikkee lan lay ut cinquième président. Mhm. te dafa ni man maay roue de secours. Mhm. roue de secours mooy cinquième roue ci oto. kon mbir mi mat na. <laughs> ba pare nee la sànq. nee la sànq. candidat yi ñoom ñëpp seen sant. est la jeexee mooy sortant. Macky Sall sort mon premier d'or d'or Ousmane Sonko est le géré Sonko sort d'or d'or D'accord. Mm-hmm. Euh, Idrissa Seck est le géré sortant d'or Issa Sall Issa Sall ah nu Issa Sall <laughs> est sort d'or président waaw <laughs> c'est très bien alors euh, bu ñu joxee réew mi mhm. dafa am ay mesures yoo xamante ni ay mesures d'urgence là. ak ay moom la def fii ci document bi muy plaquettu euh, plaquettu euh, programme am maanaam projet de société mm, waaw muy ay mesures d'urgence ak ay mesures phares mhm. mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. alors programme bi programme Madické dafa neex xam nga ku xëy sa kër li ngay njëkk ñaan mooy jàmm ak xéewal mhm. dëgg loolu dëgg waaw asuwaay jóge fële tudd ma dikkee ñëw digg la programme bu tudd jàmm ak xéewal mi ngi nii programme am jàmm ak xéewal la tudd waaw yow meloon ñaan mhm. jàmm ak xéewal doo si jàpp mhm. te xam nga bi nu programme neex na mais li jafe mooy nga gëm programme bi Macky Sall gis nañ ko ba mu ñëw lu mu diggee woon Euh, yoonu yokkute moo doon projet mais dafa defal defal defal xam nga dafa mhm. ba ci biir mu mënu ko mu changé ko indi plan Sénégal émergent dëgg dëgg rupture de contrat en plein exercice maanaam daa mel dañ ko embauché ba ci biir mu règlement embauche dangereux alors euh, ba tax na actuellement programme te ñu programme mhm. dara gënu ko yomb. Mhm. mais ñun sénégalais lan mooy suñu garantie ndax kii li mu ñu wax ndax dëgg la ci moom am déet da xool démbam xool jaar-jaaram xool xam-xam xool nit ki ci ngay xam ne ndax kii li mu ñu dikk méngoo na ak moom am déet. mais ci baax alors ci boobu ci côté boobu sunu sunu candidat muy Madické ah def na ci état du ci euh, douze ans Abdoulaye Wade yi def na ci dix ans ak moom hmm. su doon amul xam-xamu yore état kon da ko dégg ci benn scandale. kenn mosu ko dégg ci benn scandale deuxièmement kenn mus ko dégg mu wax wax ju ñaaw Sénégal dañoo toll ci am njiit yoo xamante ni seen doxalin ak seen jëfin ak seen wax seen askan wi dañ ciy maanaam dañ ciy jàng yaat maanaam dañ ciy dañ ciy jubbantiku rawatina xale yi donc wax ju ñaaw jëf ju ñaaw kenn mus ko cee dégg kenn mus ko cee gis te it li nga xamante ni moo rafle Sénégal muy ay valeurs yu noble ànd ak nit ba mu daanu ba mu ñàkk ñëpp di ko daw nga jël ko jox ko sa kër ànd ak moom. di nga wax ju baax muy kóllëre loolu dafa rafle Sénégal te ñëpp xam nañ ni taxaw na ab Ablaye Wade guddi taxaw na Ablaye Wade bëccëg ba bi Ablaye Wade Macky Sall gasal ko kàmb mu nar a dugg ci kàmb gi mu def tatafu ko ni ko doo dugg ci kàmb gi Ablaye Wade ni ko par force du ma jàdd gauche du ma jàdd droite xam nga loolu donc moo waral mu doxalee nii te tey jii bu doxalee woon nii làmbaay dana ñaaw parce que erreur weesul ñu dem élection mhm. PDS ni mu toll xam nga amul benn candidat bu bokk PDS nekk ci élection yi mhm. maintenant nag sama bokk militant PDS ak responsable yi xam nga parfois da nga ànd ak nit nga bëgg dugg ci kàmb gi nit ki walla kàmb gi. Mm-hmm. danga ko war di merci beaucoup ba nga ma wanee kàmb gi mais boo dëgëroonlu ak moom bopp ni ko ma gis kàmb gi. Mm-hmm. ba fa ba dugg ci soo dee gor soo ko am courage. Mm-hmm. da nga war a wëlbatiku ni kat wax nga dëgg ay la la ma waxoon dëgg la mais bul wëlbatiku di ko tam dëmm. naan ko yaa ma gasal kàmb gi parce que su doon moo lay moo la gasal kàmb gi kon du la ko wan dëgg la wala du dëgg. c'est parce que te xam nga li ñu naan ku daanu ci sareet xam nga soo yetul ko lay jàpp di la yëkkati sax nga ngàdd ko kur fañ mm-hmm. xam nga loolu moo dal sama gars ñi instant bi mais il faut que ñoom ñu xam ni li leen dal c'est Macky Sall mm-hmm. mais c'est pas Madické Niang maintenant beneen question bi nga bi nga posé est-ce que Madické Niang ànd ak euh, loolu dama la ni ñi nga xamante ne dañoo xamul ñun naka la ñu amee parrainage ñoom ñoo jàpp ni xëy na looloo tax mais delloo ko ñu leeralal lañ leen naka la ñu amee parrainage mm-hmm. mu nekk pare parrainage boo xam ni dañ ko liggéey liggéey bu set wecc de yàlla itam def ci xéewal ndax te loo ko liggéey liggéey bu set te yàlla def naru ci def barke dañoo ci baax xëy na parrainage du du jàll donc su ko defee dañuy nangu rek ni eh, yàlla moo def ci kii barke def ci parrainage am barke mhm. xam nga mu nekk cinquième ak cinq ñu ci wax bu nar a nekk cinquième président. Mhm. ba tax na ku ko nar a gàllankoor sooytu yooyee gàllankooru. waaw mhm. yaakaar naa euh, ne fi mu toll nii. loolu dafa tàng ma xam loolu te te man te man gis naa am na lu mu jiital. ji jiital bi jiital bi. mun naa ko dindi ah. fi mu toll nii. Uh-huh. damay nit ki. da da ciy am solo. waaw gis naa dafa ndax yaram bi tàng na te leer na ma ni Zak dese na ay question yoo xam ne. yu yu bari buñ ko ko taalee fii mën na fee mën na fee xëm. mais nag damay profité Zak xam nga ni émission bu toll. riisee nii. Mm-hmm. ñu fiy éviter fa façon daanaan bu ne. yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi yor sa Imane Sandi di ko jaay. Uh-huh. moo xam lu ñuy def ci bopp la. Uh-huh. ah moo xam lu ñuy sol la. Uh-huh. yére mbaa dàll yi ni mel. yaakaar naa war nga mën a ñëw jàpp ci li nga xam ne moo di émission bi sponsorisé leen jàpp ci nag. loolu la ah di woo sponsor yëpp ñu ñëw jàpp ci li nga xam ni moo di salon des VIP. ni kii da xeelal sama waa ji mu comme Baye Ndiaye li nga wax rek nee naa la émission bi ku ba tax na yéen ñi ñuy bi ñu seetaan sax samedi damaa bëgg na ngeen ubbi seen bët te taataan seen bopp. man de yaakaar naa man li ma ciy wax du bari ndax man moom lu may wax rek spécialiste yi nan ñëw. Mm-hmm. ndax ndax gisoo tey saa fi ma dama rey ak verte bi man nee naa la te te te yow daa mel ni sax sa verte bi dafa am foo si signalé maa la wax loolu nee naa la pas VIP la <laughs> day nooy waaye nañ gaaw attaqué waat sa waay non sa deuxième bi la ñuy jëm ak moom ndax man am na bu ma denc fii mhm. merci moom ko rafet na trop ah? incha allah waaw verte nga ku doom bàyyi neexul rek dañ koo amul te uh-huh. yaakaar lool loolu sax damay génn kër ga mënu ma foo jëm ma ne ko salon des VIP mënu ma kay tay maa la waaw bëgg naa xam 14 février kañ la. ndax na ku nekk sama ginnaaw moom mu koy. bu loolu weesoo ngeen xoolante yéen ñaar. seeni rouge noir non moom. duñ ci sori actuellement actuellement ñu ngi ci coalition Madické 2019. Mhm. ndax le 14 février egg seegun si <laughs> dañuy anticiper rek. Mhm. waa Zal soo saay lu muy joxe lu muy joxe si. Ah, man day wax. Ah, waaw waaw. mu ne day daagu daagu na ko neexee. dee. am na solo pop pop pop. waaw waaw waaw Zak. Zak yaakaar naa ne fi mu toll nii war nga mën a ñëw nag euh, ci li nga xamante ni moom mooy li des. Mhm. waaw ci ci ci question yi des daal ndax bu ñu bàyyee sa waay mu mu mu mu mu reposé wu rek. non non attan nañu attaque ñun. <laughs> parce que actuellement nii. Mhm. gis nañ euh, Zal Ndiaye Sénégal nu muy doxe nu muy doxee. Mhm. ku nekkaa ngi riir di wax coow li bari na biir wi bi bari na. ku nekk ma sàmb ma dem ba diw diw diw diw diw te tey jii nii xeex bu ci amee wala gaañu doo ci dégg benn candidat gaañ gaañ nañ ko si loolu laa bëgg a ñëw comme question may laaj ndax ñoom euh, waa ma yi mhm. ndax jël ngeen seeni matuwaay ndax nag kenn ñaanul yàlla ay daya mhm. kenn ñaanul yàlla ay mais ay doomi jàmbur la ñuy jël jox t-shirt mhm. ay doomi jàmbur la ñuy yóbbu meeting meeting ay doomu jàmbur la ñuy yóbbu ci ay nu mu Euh, caravane te seen doom yaa ngi bitim réew di jàng ay doom jaamu nañu yóbbu ci uh-huh. caravane kon jël ngeen ay mesures de sécurité yoo xamante ni c'est fépp fu ngeen am meeting wala yëpp jël ngeen seen i mesures ci sécurité ak yi ni mel waaw pour boobu ñun bu dee ay rek ay yaakaar naa mun na su dee ay rek ay mun na bañ a jóge si uh-huh. ñun parce que ki nga xamante ne mooy ki Niang du nitu ay du ci waxam du ci doxalinam uh-huh. et du ci jëfam alors euh, léegi nag mbir tamit dana am Euh, bañ a euh, daw ay tamit caageelu ñàkk fu ku dal sa kaw nga defanteeg moom loolu moom c'est sûr yaakaar naa ni ki nga xamante ne tey moo tiit ba ba nar indi daay ci Sénégal mooy ki xam ne day ñàkk xam nga yor na entre armée yor na gendarmerie yor na police waaye loolu doy ko mu daal dem uti ay marron de feu ay marron de feu dem di terroriser population bi ñun nag euh, ñun nous ne pas des hommes de feu nous sommes des hommes de paix ndax suñu programme ni mu tudd programme jàmm xéewal boo ma dikkee ñaa mi nii maintenant ñun euh, à la place ñun lan la ñu indi les ambassadeurs jàmm xéewal yoo xamante nii fu marron de feu Macky Sall yi duggee di tiital ñi ak leen terroriser ñoom dañ fay dugg dalal xelu askan wi parce que Sénégal tey jii dafa soxla président boo xam ne maanaam day nitu jàmm la day dalal xelu askan wi mm-hmm. nit ñi mën a xëy mën a liggéey ci dal mën a am ay projets yoo xamante ni du ñu ragal bu ñu ko investir ci dëkk bi ni ñëw agressé leen wala ay émeute am fi wala wala seen liggéey dootul doxati ndax ay manifestations yu méttee yu demee noonu Sénégal moo soxla dal googu ndax ñi tey yu ki woote histoire ay xuloo ay xeex ñoom dañ lay teg fële dem dox li ñuy dox fa ñu war a defee dara xam nañ ko amaana nag bu ñu defee li ñu war a def ba mag sàcc ba mag sàll sàcc élection yi su boobaa dootul moom ak benn parti mais moom ak sénégalais la mais yaakaar naa ne moom am na lu bañ a egg foofu foofu ak Sénégal yi. actuellement nii dama gis euh, yéen ñëpp yéen nga xamante ne yéen opposition bi yéen bokk presque li ma leer fii yéen yéen bokk benn bëgg-bëgg ak beneen pourquoi yéen mënoo leen woon boole seen doole ngeen benn candidat rek mu jaamarloo ak euh, président. waaw xam nga xam nga xam nga élection présidentielle ak élection député loi yi bokkul dafa mel ni euh, loi terrain basket ak loi terrain football ndax ci basket. xam nga boo sa tànk bu laalee bal bi ci ngay def faute tandis que football sa tànk bu laalee bal bi loolu mooy réglement bi mais sa loxo bu laalee bal bi ci ngay faute dëgg loolu dëgg. Mhm. élection député bu gaa yi tasee nu ñu gën a tasee ci lay bone ci parti bi nekk au pouvoir da nga wax ci baax mais élection présidentielle nu ñu gën a tasee ci lay ci lay baaxee parce que au début au bi dañoo war a tas. Mhm. premier tour su ko defee ku nekk jël ku nekk jël. pour que parti au pouvoir du mën a génn premier tour manam du am du mën am 50% pour cent deuxième tour nag gars yëpp dajaloo sot ko lolu moy lolu moy waral euh ki jaar fi ki jaar fele ki jaar fële su ko defee même Macky Sall pour éviter lolu motax moy ni parrainage pour bëgg candidat du bari ndax su candidat yi bari mom day daf koy wër ni est-ce que sax premier tour mom dana mën dana mën dana dem deuxième tour mhm. motax mu def lolu pour réduire candidat yi mhm. maintenant bu candidat yi demee nag ba yobbu ko deuxième tour mm -hmm. su boobaa ki jël pay ci opposition bi xam nga yàlla na doon mooy Madické Niang gaa yëpp jàppale ko su dee keneen nit Madické Niang da koy jàppale su ko defee eh, ñu dem pour battre Macky Sall. est-ce que boobu Macky euh, Madické Niang du dem euh, ci Macky Sall. non mais pourquoi pour mais attends pourquoi ñu wax loolu. parce que non pourquoi néewoo leen est-ce que. Idriss Seck de de de parce que actuellement nii gis nañ fi du ma tudd tur du ma tudd gis nañ fi ñu bari tay ji doon nañ sànni xeer Macky Sall di nangam ak sangam tay ji waaw mais fof c'est-à-dire il faut ngeen comprendre benn affaire c'est que wax jooju pourquoi nga koy wax manam wax wax wax ci ñeuk jama leral mhm. moo xaw a des sa bok ba léegi manam affaire parrainage bi ñeneen ñu comprendre ko ruñ ko ñu naan est-ce que du Macky moko baye mu jall xam nga ñi xawa a jàpp seen bop dañuy dañuy wa dañuy dañuy japp ni buñ demul deuxième tour tamit xëy na mu and ak Macky mhm. fañ koy teg mooy magee ko bàyyi mu jàll mu jàll kii est-ce que comprendre ju baax. Mm-hmm. loolu ñu def seen xel tant que ma ngi seen xel mun na ñëw foog loolu. Mm-hmm. mais dès lors que comprendre nañu loolu comprendre nañ ni mu ni mu demee amatuñu raison pour di xalaat loolu. parce que kii su doon day jàppale Macky. day dem mm-hmm. ànd ak moom pour Macky fëll. Macky tey jii ku ko mën a indi benn voix rek benn baat pour que mu génn premier tour du ko gëmee. comprendre ju baax donc yow nga ngay dem di xëccoog moom ni ko damay jàpp dama lay xëcc pour doo fëll. donc kooku ku naan kii Macky la àndal kooku da nga naan mais kii wax yi est moom ànd naa xelam. xam nga Sénégal nag parfois dañuy dégg benn wax rek di taw yi. mais wax soo ko déggee da nga war a analyser d'abord ndax yéen a maanaa. Mhm. mais sànq dégg naa sa biir wax nga jël sant yi comme Macky Sall Sall nangam SSS yi ba pare nga jël sa néew bi teg. mais ñëpp nga ni bitti kii perte na kii nangam sangam affaire yooyu mais yow est-ce que yow foo teg ni actuellement ni koy da ngay da ngay nekk président. waaw xam nga ëllëg ëllëgu yàlla yàlla rek moo xam ku ci nekk da ngay dem da ngay demee yaakaar mhm. demit ak euh, créer toutes les chances pour mën mhm. a gagner mhm. mais ñun ginnaaw bi ñu demee ak yaakaar ginnaaw bi ñu créer toutes les chances pour mën a gagner da dañoo jàpp ni képp kuy njabootu Ablaye Wade képp koo xam ne militant PDS nga munoo dem ci isoloir ba fekk fa bulletin PDS ba nga xamante ni ci Ablaye Wade moo ci mës a nekk tey ji Madické ñaa nekk ci nga ko fay bàyyi loolu kuy sa deret mënu ko dañoo ci baax alors euh, loolu tax na ñun ñu jàpp ni ma di Kenya. dana yóbbu Macky Sall deuxième tour deuxièmement Sénégal dañoo am lu ñu jàng ci élection diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade Sénégalais yi benn expérience lañ ci jàng. Mhm. dañoo xam ndakete suñu carte électeur bi ndake am na njariñ ndax carte électeur bi xamuñu woon ñu am na njariñ bi carte électeur abdu Abdou Diouf ab Ablaye wàdd Eh, ci ñu ne di layla ay la yew nek suñu carte bi amna na njariñ maintenant ci digënté ablaye Wade ak Macky Sall Sénégalais dafa am benen expérience buñ ci jàngaat muy ndekete carte électeur bi mën naa tax seen dundu neex wala seen dundu naqari ndax weddiwul kenn ni il fait mieux vivre au Sénégal su ablaye Wade que su Macky Sall loolu kenn werantewul pourquoi tey coono yi dund ñu koy dund c'est parce que dañoo jël carte bi jox ko koo xam te ni yelloowu ko mu dig ñu plan boo xamante ni moom sax gëmmu ko. léegi dama doon wax sànq ma ni ñun ban garantie la ñu am ni kii li muy wax ndax dëgg la am du dëgg. Mhm. da ngay xool nit ki jaar-jaaram ndax mus na wax dara mu teggi ko. ndax te mus na doxal doxalin boo xamante nii doxalin bu ñaaw la. Mhm. ndax mus na te tey soo xoolee candidat yi fi nekk yëpp ah à part Issa Sall Cheikh Issa Sall. ak Madické amul kenn koo xamante ni si ñoom euh, amul lu mun a wax si ñoom Macky Sall moom n'a parlons pas bokkul ci élection yi Macky bokkul. mom dafa jëm bok mais bokul nga jël Idrissa sek ñepp xam nañ ni quand même mais wax ma chantier Thiès si bien que nenañ dañ ko blanchir mais euh, euh, ciow yi am Sénégal yépp mais ci mom la ci mom la jaar dem bay enregistrer président Ablaye wad amna saga bu mu saga président Ablaye wad ngeen baal ci gi sax di ko wax di ko wax xalé bu ndaw sax du saga saga yoyu da nga di ji bi ñuy arrêté Karim moom moo taxaw ni mais enrichissement illicite Karim dafa flagrant bi ñu génnee Karim ñëpp kontaan ci moom rek moo taxaw ni c' est un deal international merci da ngeen wax ji baax. mais kooku ay doxalin la yoo xamante nii nit ñi mënuñu ko comprendre nga jël Sonko Sonko xam nga man su ma la rombee yow nga saaga nit rek saaga même bu ma la ko waxul mais xeeb naa la. asama ak yow nga mën a xalaat rey nit fugie ay nit même si xëy na ba nga koy wax xëy na du dëgg ci yow mais nee nañu mag la muy kafe mooy dëgg ci moom koo xamante ni yow faloogo ngay promettre ndonte ci ay kaf la ndonte ci ay kaf la nee na da kaf ba mu koy wax donc damay jàpp la mu wax ni ki su waxee da ngay jàpp la wax mais weddi wuli moo ko wax ndonte ci ay kaf la mais moom moo taxaw ni ancien chef d'état yi mun naa ni ku leen woon amoo dégg nga ci baax donc non waxin la mais wax la té moko wax attendez man nak kumay may suma ma la joxé police gendarmerie ak armée ak ay série pistolet ak seeni ay liif ku fi dé yow bok nga ci ñiko ray xam nga et puis aussi so xolé mom dafa jóg di critiquer ay mal gouvernance ay guerre yu démé non mais amna na dem audio bo xamanteni nii mais audio bobu dafa dafa dafa képp sonko ndax moy famille boobu ñu waroon fay 94 milliards yoy muy wax mom mu tok ak famille bi di leen demander 10 pour cent su dee moom fexe na ba tek pression état bi. ba état bi fay si audio mom moko wax ak gémmiñam audio bi mi ngi audio ba ngi jaar luñ ko tumal dé moy état bi mu na ngeen fay ma 10 10 bu féké fexé na ba état bi fay leen man mu na tek pression bi ay pression état bi lolu li ci xaw da ngaa jot ci audio bi. ah jo jotaguma si si si audio mën naa leen ko jox léegi après ngeen dugal ko si kii bi non mais mi ngi si net bi non ma ñëw man ma daaneel ma daaneel ma daaneel audio baa ngi ci net bi si si mi ngi ci net bi euh, même sax am nañu ne pour nëpp wax audio boobu moo tax ñenn ñi mais yow gisoo dañ ko def pour yàq pour yàq non non du question yàq man yàq non attendez du question yàq dama ni du question yàq lu mu waxal gémmiñam la du lu ma ko fental moom moo wax loolu mais dama ni su doon moom dafa am agence de recouvrement yow nga famille bi état bi amal leen bor am na droit ni famille bi mën naa topp état bi ut ay avocat ba état bi fay leen ngeen fay ma di pour cent loolu agence de recouvrement noonu lay dundee. Mm-hmm. mais en tant que yow politique nga daan danaa xas état bi danaa def ay meeting pour attaquer coow li tu comprends très bu ñu leen fayee ngeen fay ma 10 loolu dessous de table la comme se dise la vérité amu ci droit alors koo xam ne yow yaa ngi euh, xas yaa ngi ŋàññ. ay doxalin yu bon te yow ko ñu jàppale ci ay doxalin yu bon mais kon sëñ Abdou Lahad la mu waxoon day daal ñëw taxaw nit ki su dee waxi démbam méngoon ak jëfin ak ak ak jëfinam. Mm-hmm. jàppal ni góor la. Mm-hmm. jàppal ni la jar naa mm-hmm. mais su dee waxi démbam méngoowul ak doxalin tayam xam nga def ci ndànk. te candidat yi ngi fit li yëpp nag à part Issa Sall moom xawma ko wax dëgg yàlla nit ki boo xamul da nga ciy maandu. Kamu ah, lupa lu bon dégguluma ko ci lu bon wax dëgg yàlla donc dama ciy mandu ma dikkee rek daal waaw donc à part Issa Sall xam nga te ma dikkee avantage bi mu am mooy gérer na état te kenn mos ko dégg ci benn scandale kon ci nit ki bu ñëwee dig la dara nga xool démbam ba tey amul benn gàkk-gàkk boo xamante ni ko ci tuddal kon bu la diggee sa xel war naa mën ba keroog ngay gis leneen kon kooku moo gën dal xel koo xamante ni la mu la mës ak la mu la wax am na ci ay gàkk-gàkk yoo xam te mu nga cee teg sa baaraam. Mhm. waaw léegi ci foofu ci foofu comme fi mu nii ku ne xam na ni élection yi moom daanaka ñëw ndax ku nekk yaa ngi fexe noo ubbee sa meeting démarrer li nga xam ne moo di sa campagne. Mhm. mais tey bu fekkoon ni exemple nag laa la jox bu fekkoon ni Macky Sall ak Sonko génn nañu deuxième tour. bu boobaa Sonko la ñuy jàppale. Sonko la ñuy jàppale ko ka amul werante. Ah. waaye yow. léegi Macky Sall kenn danaa dëgg dëgg léegi sa biir wax nga ne nag kuy kuy kuy kuy koo xam ne dafa pare pour pour pour rey nit. waaw loolu dama indi question. waaw léegi su demee deuxième tour ak ka nga xamante ne yee nga ni léegi koy faral. foofu koo leen di. dama ni ku dem ak moom deuxième tour. ñu faral kooku pour fole Macky Sall ku mu mënti doon ku na fi jógee rek na dégagé. man Zal werante Zal Ndiaye yaakaar naa ñun lu ñu dese si temps. bëreetul bëreetul de. kon euh, kontaan nañ euh, ci invitation bi nga xamante ne invité woon nañ ko euh, Sanga Mbacké ñuy wax li mooy Sénégal fu jàmm xaj nañ xam ne jàmm rek moo fa xaj te benn bopp kenn mënu ko xar ñaar te may jox tamit jeunesse bi nañ tijji seen xel yi ñu xalaat. ñu xam ne jamm mo fi am jamm mo fo jamm jàmm xajurul jàmm politicien buñ leen xeexloo buñu len yóbbu di len sal talo puna buñu len parce sen dom yaangi bitim rew di jang actuellement ni ku nek yor nga sa carte te am nga droit nak far fu la neex suñu so duggé nak sa manam euh, rukk ma ké nga am nak ko jox ko nga santé na nga jox ko kon euh, sang sanga Mbacke loo tàggoo waaw bon di euh, di len sant di remercier salon des VIP salon bi vraiment solo am ay euh, jus yoo xamante ne solo lool. Mhm, mhm. yoo xamante ne vraiment tubarkàlla. Mhm. te am na et puis aussi euh, dana permettre sénégalais yi découvrir n'est-ce pas euh, lo xam ay découvertes yo xamante ni nii de amuñu ko woon. donc may appeler encore ñëpp ñoo xamante ni moy public bi. ah ñi nga xamante c'est des promoteurs de produits. et initiative bu mel ni ñu dolel ko. parce que man bima ma ci salon bi. gis ko également ci internet bi vraiment mu nekk ay production de qualité mhm. ay doomi réew mi di def mhm. man japp na ni képp ko xamante ni da ngay jappalé mhm. wala ngay def ben publicité war nga jappalé d'abord doomi réew mi ndaxte lii moo mun tax réew mi donc fi dans le rek mooy di remercier et encore une fois de plus di demander à tous les promoteurs de produits n'est-ce pas de de de penser au salon des VIP pour que le produits soient des produits de VIP. Niki waaw comme man li may daanaree li may tàggatoo euh, maa ngi remercier. Euh, Sanga Mbacke Sanga Mbacke. Mbaye koy remercier parce que li mu wax dëgg la en plus ku nekk moom sa partenaire nga am. ku nekk maanaam daal ki nga nekkal nga mën a jàppale. kon li may wax rek mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam ne ba tax na sénégalais yenn laay wax ni nga ubbi seen i bët te xam ne campagne yi ñëw bi kii wax léegi rek bi Zak wax rek laay waxaat ñoom seen doom yi bitim réew bi jàng kon non violence. baay ah waaw man la woon fa woon rek ginnaaw bi nga xamante ni damay remercier bu baax invité bi ndax euh, gis nga yitte maanaam nit ku da ku ko dagg ñëw teewal la rek jàppal ni bàyyi na yitte. Mhm. sànq ba léegi yéen gis fi mu toog mhm. téléphone am. kàr mhm. ba pare mu nekk coordonnateur fi nga xam ne moo di Ndakaaru jaay ak li wër. kon xam nga ni ci amul benn jot waaye bu ko bàyyee xajoon na si temps ko jar naa remercier mhm. waaye tamit ci remerciement yi dañuy remercier bu baax mhm. suñu benn Pape Moodu mhm. ak ki nga xam ne mooy mère Khady ak seen i doom nga xam ne vraiment bàyyi woon salon des VIP mu wéet wax dëgg fa ñu ngi ñuy jàppale chaque jour di ñu accompagner di ñu dooleel te bu leen neexoon mu bañ leen ci fekk nag xam bu loolu weesoo nag di wax ni ñi nga xam ne ñu ngi ne xaar chaque samedi fii ci social shopping ñu xam ni foofu la mhm. te si alsop yi yemul rek tamit ci ay émission am na yeneen mbir yi nga xamante ni ñu ngi ak moom mhm. yaakaar naa ni ku ñu ñëw tamit jàppale ñu jël mhm. waaw wax dëgg fa yàlla yaakaar sànq ba léegi yéen a gis fi mu toog téléphone ba pare mu nekk coordonnateur fi nga xam ne moo di Ndakaaru Njaay ak li ko kon xam nga ni ci amul benn jot waaye bu ko bàyyee xajoon na ci temps ko jar naa remercier waaye tamit ci remerciement yi dañuy bu baax suñu benn Pape Moodu mhm. ak ki nga xam ne mooy mère Khady mhm. ak seen i doom nga xam ne mhm. vraiment bàyyi wuñ salon des VIP mu wéet wax dëgg fa ñu ngi ñuy jàppale chaque di ñu accompagner ñu dooleel te bu leen neexoon bañ leen ci fekk nag xam nga bu loolu di wax ni ñi nga xam ne ñu ngi ne xaar chaque samedi fii ci social shopping ñu xam ni foofu la social shopping yemul rek tamit ci ay émission am na yeneen mbir yi nga xamante ni ñu ngi moom yaakaar naa ni ku ñu ñëw tamit jàppale ñu jël waaw wax dëgg fa yàlla yaakaar yaakaar Sanga mbay Mbaye kontaan nañ euh, ci OFT bi mi nga xamante ne nga ñëw fii rek toog nii wax te li nga wax yëpp yaakaar naa képp kuy sénégalais dina la déglu incha allah te am na solo te yaakaar naa fa tey bi nga toog ku fi toog am na ndam ah ñi fi jot a jaar yëpp di annoncé yu bëri ba grand théâtre bi duma tudd tur ñu fi jaar ñëpp kon nag dinañ invité waat ñeneen ñoo xamante ne ci parti Sonko lañ ne parti APR ñëpp dinañ leen woo ñu ñëw fii ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ci yeneen i daje incha allahu rabbi jërë ngeen jëf